للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadimihi dawi ridwani wattamkin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi ak fu ngeen mën a ne ci àddina di suñuy bokki taalibe ñu ngi leen di nuyu di leen ziara rawatina yéen ñi nga xam ne yéen baaxoo teewlu suñu jataay bi nga xam ne mi ngi jàll ci ñaar fukki fan ak juróom nekk ci weer wi ñu tuddee ko xayaatu Cheikh al Xadim muy dunduk sëriñ bu mag bi radiallahu taala anhu te ngeen di ci ànd ak Eh, seenu jumaa ju mag ji jumaa ju mag ji di GMT TV waaye ñu lëkkaloo ci ak daairatu muqaddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu eh, jumaa ju mag ji jumaa Seexul Xadim ji ñu del siwaat nag tey ginnaaw eh, bi ñu xëy na amee ab diir boo xam ne gisul leen ñu waaye lépp rek tënk-tënk jamono ci jégalu lu baax ñu ñëwaat tey nag ngir eh, indiwaat benn jataay ci jataay yooyu nga xam ne dafa jëm ci dunduk sëriñ bi eh, bu ngeen fàttalikoo jataay bi weesu waxtaane woon nañ eh, lenn ci dunduk kenn ci way juri sëriñ bu mag bi di way juram bu góor di sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali loolu itam li ñu ci jublu woon rek mooy ginnaaw bi ñu euh, xamee lii nga xam ne mooy cosaani sëriñ bi ci wàllu askanam xam le ak feeñam jamono ak bërëb bi mu feeñe jamono ak waxtu bi mu feeñe jamono baax na ñu def beneen laytaay boo xam ne dañ koy waajale am njàngam te loola jëm ci euh, dunduk fameem maanaam ñi nga xam ne ñoo ko séq ñoo ñoo ko seq ci ay wayjur seq ko ci ay kilifa ñu waxtaan aslaf ci ñoom donte ñoom ñi ñuy tudd di sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ak ñi ci topp ñëpp du ñàkk ci biir jataay yi ñëw ci kanam kenn ku nekk ci ñoom du ñàkk ñu dellusiwaat ci yaw ci loo xam ne dana am ak lëkkaloo ak doxinu sëriñ bi moo xam ci waxtu am njàngam la wala wala ci waxtu ab yaram la wala ci waxtu aw doxinam jëm ci boroomam ak yi ci aju eh, moo tax sëñ Mor Anta Sali indi woon nañ ci lenn ci ak dundam lu aju ci am am njàngam ak xam-xamam ak yenn ci yi nga xam ne firnde yi nga xam ne mooy firndeel ne ku bari woon xam-xam la te ku ragal yàlla la woon waaye incha allahu taala bu ñu dellusiwaatee ci eh, waxtu njàngum sëriñ bi rawatina li nga xam ne moo ci aju ci digganteem ak juróom bu baax woowu du ñàkk ñu dellusiwaat ci lu gën a yaatu tey nag ñu bëgg a ñëw def benn tënk itam ci dunduk juróom wu jigéen di soxna jaara soxna jaaratullahi Mariama Buso eh, moom it ni ni ñu ko waxe woon ci juróom wu góor rek ba ñuy tudd cosaani sëriñ bi tuddoon nañ aw askanam wala lenn ci askanam ci wàllug euh, ndey ak ci wàllu baay kon xëy na du ñu soriwaat ci loolu tey jii dañuy ñëw rek lenn ci ay jaar-jaaram moom soxna si cib tënk ak lu aju ci aw meloom wala lenn ci ay jikkoom rek def ci ab tënk ngir ñu xam ne daal Cheikhul Xadim radiyallahu anhu nii mu mel nii rek la war a mel ndax yàlla daf ko waajalal ni mu ko waajalale moom ci jëmmam ba ni ko cheikh Mouhamadul Bachir waxee ne acheikhul xadim ni yen yàlla da ko bind mu nekk nitu yàlla waaye it noonu it la ko waajale ci eh, ay wayjur yu baax wala ci environnement familial boo xam ne eh, ci la gimmee ba eh, mel ni mu mel ci sell ci ragal yàlla ci maandu ci bari xam-xam waaye ci mboole makaarimul axlaaq yooyu nga xam ne daana daana ko wax lu baree bari di wax ne dafa gimmi rek ñu tokki ko ci te mujj daan tudd mm, kenn ci ñi may waxtaane fii te mooy nijaayam ju baax ja sëriñ bu soobee nga xam ne incha allahu taala danañ ñëw ci moom buñ jógee ci ñaari wayjur yi tey ji ñëg ñu war a tudd nag kenn ci ñoom di soxna jaara <clears throat> soxna jaara nag ni ngeen ko xamee Euh, mi ngi ganee jamono ci li gën a siiw ci dëkk bu ñu wax Mbusoobe ci Jolof ci atum junni ak ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett ci ati gàddaay gi loolu mooy mille deux cent quarante huit atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ba tey ci li gën a siiw mooy mille huit cent trente trois euh, feeñ kon ci diggante ñaari waajur yooyu ñu tuddoon ca njàlbéenu waxtaan ya te mooy woy juróom góor turam dëgg-dëgg di ñu gën ko xame ci sëriñ ma Buso awa Mbaay euh, mooy woy juróom góor di doomi Hamad di doomi Ali woy juróom jigéen di soxna Aysatu Mbakke muy ko ñu xam moom it moom danañ ñëw ci moom it allah ci waxtaanu boppam jataayu boppam di soxna Asawalu Mbakke mi nga xam ne euh, Amadou Ahmadou soxna Buso mii doomi maam maharam mooy woy juróom ci wàllu woy wu góor bañ ca tollee waxoon nañ waajur yu jigéen xëy na du ñàkk ñu dellusiwaat ci buñ ñëwee ci di ko waxtaane Soxna Jaara bi feeñee ba toll ci war a jàng eh, dañ ko jaarale rek fi ñu baaxoo jaarale ku mel ne moom eh, ndax waajuram wu jigéen woow yi yàlla dafa dogal mu nekkoon boroom xam-xam nekkoon jàngalekat moo tax lu ëpp ci am njàngam moom soxna jaaratullahi génn ci diggante euh, way juram wu jigéen woow yi soxna sawaalo xëy na lim fi fekkante way juram wu góor bariwul ndax wax na ñoom dafa teel a dem jamono yooyu day fa nekkoon jamonoy jihaat jamonoy ay ay xare moo tax way juróom wu góor eh, taxul mu yàgg fi lool wala mu yàgg feek moom wala ñoom ñoom njaboot gi lool waaye nag soxna Asta taxaw taxawaay bu rafet ci yar ak njabootam njaboot gu góor gi ak njaboot gu jigéen gi yar leen ci ak laab yar leen ci mbañum rus waaye yar leen itam ci e, diine ak ci jikko yu tedd danañ ñëwaat ci moom ci daaraam jooju nga xam ne moom la taxawaloon ci Saalum moom soxna Asta te mu nekkoon daara joo xam ne ay kàngam yu mag ci réew mi wax nañ ne jaar nañ fa ba génn nekk ay làmp yu leer nañ yoo xam ne fa ñu nekk ci seeni gox dañ fay leeral diine di fa tasaare xam-xam kon soxna jaara teer a wattu alquran lool wax nañu sax bind na ci loxoom euh, kaamil am na sax ñuy wax lu ëpp benn kaamil waaye daal lu mën a xew teel naa wattu alquran bind kaamil teel a ci njàngum xam-xam ci mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ne jamono jooja euh, xam-xam yu tasaaroo woon la yu yuñ daan jàng la diggante tawxiid ak fiq ak tasawuf ak ak jumtukaay yi nga xam ne ñooy tax a ko làkk wi diggante naxwoo sarfook ak yi ci aju yëpp euh, teel na ko euh, teel na koo xamlu ba géeju ci wax nañu ko rafetoon mbind la itam ab loxoom rafetoon na lool ci wàllu wàllu bind euh, waaye mu teel a sóobu it nag yoonu jigéen ñu baax ñi soxna yu baax yi nga xam ne ñoom la alquran ñoom la alquran di tagg di leen tuddee alsaalihaat di leen tuddee alqaanitaat di leen tuddee alaabidaat ak melo yu mel noonu boo demee suratul ahzab ak suratul tahrim indi na fa seeni melo ñoom jigéen ñu baax ñoo ngi soxna jaarat ci ak ndawam rek wala ci ak rawam rek booba nekkagul sax euh, mag lool la teel a sóobu yoonu gaa yu baax yooyu loolu lépp nag ci ndimbalal euh, woy juróom wu jigéen wu tedd wu baax boobu nga xam ne da ko teel a tàggat ci jàng ak sàkku xam-xam waaye teel ko yarit nag ci liggéeyu jigéen mu teel a man togg teel a man rooti teel a man fóot teela man bale lépp loo xam ne jigéen jigéen dana ko def ci këram rek ñu teel ko coo toqi nga xam ne yemul rek ci ne moom doo doomi soxna la kon na jàng rek yem ci njàngum xam-xamam ak alxuraanam déedéet dañ ko daan liggéey loo koy jërëm bu jigéen da koo tàggat ci liggéey teel ko tàggat ci liggéey ba macha allahu taala mu teel man yooyu yëpp teel a doon daal misaal bu kawe ci jikko ju rafet teel a doon itam misaal mu kawe ci soxna su baax soo xam ne eh, la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayru mataa dunia al mara saaliha soxna jaara teel na ko dégg teel na ko doon waxoon ne ngën ji eh, li gën ci bagaas yi àddina nee na mooy jigéen ju baax loolu rod na ci xadis kon Euh, euh, loolu moo ko fàggul kon mu teel am jikko ju baax jikkoom jooyu nag buñ ko doon tënk moom soxna jaara nga xam ne bu ñu nee mooy way juru sëriñ bi sëriñ bi mel ni mu mel ah ku ko xam du la jaaxal bokk na ci jikko yooye nag jikko yi ci gën a ràññiku mooy ak ragal yàlla am te ragal yàlla gi lëkkaloo woon ak sellalam ndax ragal yàlla ñu xam ne mooy eh, ak garab la ni ko si abdulaat misaale woon garab la goo xam ne ci xol lay sax te ndox mi ko war a suuxat mooy ndoxum jëfe ndigal ak bàyyi tere euh, muy al imtisaal wal ijtinaab euh, moo tax Cheikhul Xadim daan wax ne at taqwa chitraani chitrul euh, imtisaal wa chitrul ijtinaab wax ne ragal yàlla ñaari wàll la genn gi jëfe ndigal ak bàyyi tere suñu laxat nag ne woon na ku koy suuxat ak ndox moom yi ndoxum ragal ndoxum ndoxum topp ndigal ak bàyyi tere faaw dana meññ te su meññee balaa jariñ kenn yow mi ko doon suuxat yow lay njëkk jëriñ Euh, kon soxna si teel naa euh, tàmm bàyyi xel boroomam teel naa tàmm jëfi ndigali boroomam teel naa sori lool yi nga xam ne suñu boroom da koo tere euh, kon yàlla teel na ko ci defal tawféex te loola la cay firnde <clears throat> mooy teel a yittewoo gum gum teel a yittewoo farata yi ak lépp loo xam ne lu jàppandi la ci moom ci yi nga xam ne du ay farata te mooy ay nawaafil tàmbalee ci julli yi da ko daan taxee ba mat sëkk ci ponk ya ca sart ya ca laab ga daan ci jiital nag julli farata yi waaye daaw ci yam da ki daan boole itam nag saxal taxaw guddi teel naa tàmm taxaw guddi moom soxna jaara ci jàng alquran ci ay nawaafil ci di jéggalu boroomam ci waxtu yu njël wax nañu sax ñi ko daan dégg mu ko daan nettali daana wax ne da wax nañu daana wax ne radiallahu taala anha ba ma jàngee ci alquran ñaari aaya yi suñ boroom di tagg ñi nga xam ne su guddi jotee bu ñëpp nelawee dañuy yow jóg di julli ak a seen boroom bu ma jàngee ñaari aaya yooyu rek laa daal di nag farlu ci di taxaw guddi te fekk booba nit ñi ñu ngi nelaw benn bi mooy kaanu qalilan min al layli maa yahjacuun bi ci des mooy wa bil asxeeri hum yastaxfiruun eh, amaat na sax beneen boo xam ne si wax wal mustaxfirina bil asxeer eh, nga xam ne kon yooyu yëpp suñu borom da ci tàgg rek ñi nga xam ne ñooy jóg waxtu njël di julli ndax al mustaxfirina bil asxaar ci ñiy tafsir alquran bil asxaar am na ñu koy firee ne mooy ñiy julli rek waxtu njël di di di tuubal seen borom di ko di di ko jéglu te loolu ku ne xam na euh, li mu am ci wàccuwaay ak ci tuyaaba ndax am na xadis boo xam ne abu hurayrata radiallahu taala anhu moo ko nettali mu wax ne damaa masa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah man day def rek su ma la gisee sama xel day dal sama xol day sedd ma bëgg nag nga wax ma loo xam ne daf may jariñ ci sama diine ak ci sama àddina sallallahu alayhi wasallam ne ko ah, waaw loolu de li ma la ci njëkk a jàngal mooy lépp loo gis rek yàlla nga ko bind ci ndox mu ne ko benn waaw loolu xam-xam la bi ngi des waaw bëgg nga wax ma mbir moo xam ne daal loo xam ne daal su ma ko defee tàbbi tàbbi àjjana Abu Hurayra moo ko wax loolu moo ko wax sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi ne ko dangay fonk nuyoo del nuyoo lu bari tey joxe ñam te fonk joxe ñam tey jokk ak bokk waaye mu tegal ko ci ne ko na ngay julli guddi fekk nit ñaa ngi nelaw soo ko defee danga nga tàbbi àjjana ci jàmm afshi salaam wa at'imi taam wa silil arxam wa qum billeyli wannaasu niyaam summa duxulil jannata bi salaam kon soxna jaara teel naa dégg aayaat quraani yeyee teel koo jëfe lool waaye teel naa dégg itam xadiisu abu hurayra bi nga xam ne sallallahu alayhi wa moo ko wax mu jële ko ci moom kon ay jikkoom euh, ragal yàlla googu mooy li ci fis ndax ragal yàlla mooy bopp jikko yu baax yëpp te bokk na ci firnde yi kon mooy teel a euh, taxaw temm ci jëfe ay warteefam ci diggam ak boroomam euh, jëfe warteef yooyu diggam ak boroomam itam nag doxul woon digganteem ak mu jëfe lépp lu ko war ci ay warteef ci diggam sëriñam bi ko yàlla booleel bi yàlla dugalee mu dugg ci ay loxoom nga xam ne lu jiitu muy ñëw ci kër gi fekk na mu tàmm lu baax loolu fekk na mu tàmm jaamu yàlla googu ñu toq ko ci waaye nag wax waxoon naa ci sànq bi may ubbi ne teewul it niñ ko niñ ko toqee woon ci jaamu yàlla noonu lañ ko toqee itam ci e, liggéeyu kër moo tax bi mu ñëwee ci kër gi itam suñu nopp e, niñ ko xamee rek dafa daal di jël jihaatam jëpp xam ne jihaatu jigéen ni ko Cheikhul Xadim jàngale ca wasiyatu soxna penn bu yóbba wal taalami anna jihaada niswati fi taati l azwaaji duna miryati jihaatu jigéen mi ngi ci topp topp borom këram rawatina ci lu neex yàlla moo tax ñuy wax mu daal di jël nag loola teg ko ci kanamam di jaamu yàlla waaye nag di jaamu yàlla itam nag ci ci sëriñam nga xam ne amut ci amu ci amut ci ñaari warteef yooyu benn buy gàllankoor moroom ji benn boo xam ne day yàqal day yàqal moroom ji loolu moo tax Cheikh Mahamadul Bachir radiallahu taala anhu wa arda bi mu koy melal ci minan dafa dafa wax ne wayjuru sëriñ bu mag bi day u jigéen di jaaratullahi Mariam jigéen ju baax la woon ju yiw la woon waaye jigéen ju fegu la woon jigéen ju amoon diine la wax ne melo yooyu bu ci yemoon mu doy sëkk bu ne woon saaliha afifa day yii naa day daal doy sëkk saalixa rek kon ne xam na ne doy naw tagg ndax du ñëpp ñoo mën a jóg rek doon ay saalix ay saalixoon wala ay saalixaat ndax bu yomboon kon eh, eh, leer na ci ñu baax ñi du ñu tàllal seeni loxo yàlla di ko ñaan mu boole leen ci wa adxil nii bi rahmatika fi ibadika saalihin bari na ci eh, nit yàlla yi rawatina ci yonent yi ñoo xam ne dañ ko daan ñaan seen borom yàlla defal leen ko Euh, ndax wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyasa kullu min as-salihin ñooñu ay ay yonent lañ te suñu blaat ne woon na foofa ku ne xam na ne kenn mënu faa dugal sa bopp te kenn mënu koo ñàkk tam kenn ku ne soxla nga ko kon buñ ne soxna diw sàngam saalixa la ku yiw la ku baax la loolu day daal doy sëkk aw tagg waaye kon day mel ne mela yu ci toppaat yëpp melo yu koy saraa rek la en fii fa mooy ku fegu day yi ne mooy ku am diine moo tax yim ci tegaat ci ay jumal ay phrase day firi rek ñetti melo yooyu salaax gi ak affa gi ak tadayun gi maanaam baax gi yiw gi ak fegu gi ak am diini gi rek la yooyu rek la firi ci kasirata salaati wa sawmi wa sadaqa ndax nit ki bu baaxee jigéen bu doonee jigéen ju yiw dana feeñ ci jaamu yàllaam jigéen bu doonee jigéen ju fegu dana feeñ itam ci aw doxiinam dana feeñ tam ci aw jëflanteem ndox fegu mooy sàmm rek moom sàmm sorewuñ te melo la woo xam ne suñu boroom tagg na ci sayyidatuna Maryama ummu sayyidina Isa alayhima assalaam tagg na ko ci ñaari aaya ci wallati ahsanat farjaha ak wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha bee ci al anbiya bii ci at tahrim te benn bu ci nekk wenn benn jikko la ko tagge te mooy jikkoy fegu doomi imraan ji nga xam ne dafa sàmmoon boppam dafa sàmmoon pëyam loolu fegu la ci wàllu téye sa bopp ba doo mooy waaye mu tudd tur wa feneen ne mariama doomu imraan ji nga xam ne moo moo sàmm boppam kon na jaara bu sëriñ Basiiru ne ku fegu la woon ku yiw la woon ku amoon diine la yeneen kon yeneen niñ fi tegaat yëpp day mel ne rek day firi baat yooyu moo tax bari woon ay julli la ci teg kasirata sola kon bari julli day tekki ne daawul yam ci julli farata yi rek daraan julli julli julli farata yi teg ci yeneen rawaatib yi nga xam ne dafay ay nawaafil te doon nawaafili sola te doon ay naafilay julli waaye ku bari woon ak koor la itam day tekki ne kon daawul yem rek ci ramadan ci kooru farata yi waaye koor ngàtt yi kooru ngàtt nga yi yëpp da ko daan def itam nag ngir sàkku tuyaaba imaanan wa ihtisaaban ku bari woon saraxe la kon saraxe itam boo waree génne azaka kon dana génne dina ko génne ndax ndax loolaa ca jiitu azaka ci jiitu mooy kon farata ji xuz xuz min amwalihim sadaqa la alquran wax waaye comme da koo barile woon lool kasiira la wax da ko barile woon kon daawul yem rek ci joxe azaka daan na itam jël ci alalam di ci dimbule ñi mu tane saraxe ngir yàlla waaye mu tekki lu am solo mu ne mustaslimatan li rabbiha ku jébbaloon boppam boromam la soxna jaara ku amoon tawxid loolu day teg ne ku amoon tawxid la mooy ku wéetaloon yàlla la mooy dafa bàyyee woon ak boppam boromam te loolu yaakaar naa bu ñëwee ci ni mu doon téyee sëriñ bu mag bi ak ni mu ko doon sàmmee ak ni mu ko doon waggare ak ni mu ko doon yiire defe naa lool dana ci feeñ te loolu mën naa ñëw ci kanam insha allahu taala kon ku jébbaloon boppam boromam la waaye ku daan taxawit nag ci warte fi diineem la ndax julli rek ak koor rek ak asaka rek ak sarax rek du diine donte mooy li bokk na ci li gën a am solo ci diine waaye nag jëflante ndax addiinu almuamala kon yeneen warteef yi nga xam ne bokkul ak ibaadaat yi jaamu yàlla yi euh, nam ko daan rafetale noonu noonu la daan rafetale itam jëflanteem digganteem ak ay ay ay bokki dëkkandoom ay bokk te buñ ne bokki dëkkandoom ñi ci jiitu mooy ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleeloon ñu bokk nekk ci kër gi suñuy nopp di ay bokkam yu baax yoo xam ne kenn ku ci nekk doy nga misaal ci ci jigéen ju baax doy nga misaal ci jigéen ju sell doy nga misaal itam ci jigéen joo xam ne ju rafet jikko nga waaye noonu itam nag la daan taxawee ci wartee fi diineem diggam ak boroomam naam waaye ci diggam ak sëriñam bi nga xam ne moom la ko yàlla boole loon te cheikhul imam la ko sëñ Cheikh Ahmadou Bachir di wooye te mooy sëñ Mbàkke Moor Anta Sali léeg-léeg mu wooye ko a cheikhul imam léeg-léeg mu wooye ko a cheikhul walid ci biir téere bi waaw kon euh, daal dafa dafa boole woon lépp rek te loolu yiñ ci xise ñu ci nett li bari na lool euh, doonte jarul indi di ko di ko di ko baamtuwaat waaye dama xam ne xise yooyu yëpp buñ buñ ko dee buñ ko dee jàngat lañ cey jànge rek mooy ku nangoo woon a jëfi ndigal la ku déggoon ndigal la waaye ku nangoo woon a muñ muñ euh, coono yi nga xam ne moo nekk ci jëfi ndigal ndax jëfi ndigal dafa doon loo xam ne lu jafe la loo xam ne yombut kon Euh, yenn yooyu yenn la ci jikko yi nga xam ne Cheikh Ahmadul Bachir da cee melal soxna jaara te boo xoolee jikko yooyu dafay yoo xam ne dafa dox digganteem ak boroomam yenn yi dox digganteem ak ñi mu bokkal jamono tàmbule ci sëriñam bu baax boobu ak ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel ñuy ay bokki daaraam waaye yeneen leneen lam ci tegaat dafay beneen wàll goo xam ne gu am solo la ci doxinu soxna jaara te mooy nag li ko waroon digganteem ak njabootam ndax nit ki itam wala wala boog jigéen ju baax itam su fexee ba diggam ak boroomam rafet fexe ba ni muy toppe boroom këram rafet loolu loolu la ñuy wax xosnu tabaaxul noonu lu ko ba jàngale woon ci hadisu asma bint yazid ba xosnu tabaaxul te mooy rafet aw toppiin rafet aw sëyin bu bu bu yooy yëpp rafet rafetee rafetee itam dafa am nag leneen loo xam ne rek dafa des te mooy nag diggante mag njaboot gi diggante mag njaboot gi te diggante mag njaboot gi itam Cheikh al nee na soxna jaara da ci daan taxaw taxawaay bu rafet te mooy di yar njabootam ci ni ma ko waxe woon moom soxna jaara yar ba ko wajuru baax wa yaroon soxna sawaalo ci tohaara ci laab ci muruwa maanaam bañum rus ci diine ci makaarimul axlaaq noonu itam bi mu amee bi ko yàlla joxee njaboot itam noonu rek la yare ak njabootam fexe na ba njaboot gi mu yar leen ci laab yar leen ci mbañum rus yar leen ci diine moo tax mu daan faral di toog ak ñoom waxtu nii maam yi daan def rek am na ñoo xam dañ ko daan def ci léeb ak ñu def ci ay ak yooyu waaye moom soxna su tedd soosu moom da daan def moom su ma raxma saana jot mu dajale njaboot gi te booba ay ay ndaw lañ ay ay tànk lañ ci saahir di leen wax ne na ngeen jéem a roy ci ñu baax ñi di leen jiitu woon ndax bokk na ci ñoom kat seeni i aada ak seen i jikko mooy su guddi ma saana jot dañuy taxaw di naafila ba Cheikh Amadou Bachir nee na ci la ku baax ki Cheikhul Khadim ak bokkam yu baax yooyu mu bokkal soxna si teel a tàmm lool taxaw guddi ndax nee na sëriñ bi jóg na jóg na ci taxaw guddi te booba sax dégg nga demagul ci daara àggagul ci ati dem daara kon loolu kon yées na kon juróomi at boo koy seet waaw wala boog xëy na ci lay toll nga xam ne kon àggagul daal maanaam ci juróom-ñaari at eh, yoo xam ne ci lañ baaxoo di dal ah, kon kooku dafa teel a dégg ndénkaani soxna jaara ci eh, royloo gum leen doon royloo Euh, ñi nga xam ne ñooy gaa yu baax yi su ko defee yooyu kon yenn la ci jikko yi nga xam ne soxna si ràññeeku na ci euh, ci incha allah jotaayu tey bii euh, danañ tënkandi foofu yenn yi bu ko defee bu ñu dellu siwaatee nag muy ñaareelu xaaj bi war a mottali li aju ci soxna si danañ waxtaan ci ak baaxam maanaam ak salaax salaax salaax googu ñu doon junj ci ne saali la lan mooy salaax dëgg-dëgg ak ifa googu nga xam ne moom laa junj itam ci biir wax ji moo mooy lan danañ ci ñëw su ko defee itam joxe ci ay ay ay ay ay misaal euh, andi wa it li nga xam ne moom la salaax ak mbaax ak yiw ak ifa mën a jural ki koy def te lenn li di ay njariñ yoo xam ne da koy gis ci àddina balaa dem da koy gis ci àddina waaye bu ëllëgee itam bu demee ci boromam man koo gis muy loo xam ne xéewal la guddul jeex koo xam ne fii lay tàmbalee ci àddina yooyu yëpp soxna jaara Euh, joxe na ci ay misaal yu leer yoo xam ne incha allahu taala bu ñu dellusee ci jataay bii ñëw danañ ci danañ ci taxawaat bu neexee yàlla kon ñoo ngi euh, tënk foofu suñuy incha allah suñuy kàddu di leen ñaanal jàmm yéen ñi nga xam ne yéen a doon bàyyi xel jataay bii nga xam ne mooy xayaat al Cheikh al Xadim te ñu ànd ñu ànd ci ak daayira daayiratu muxaddamatul xidma waaye nag chaîne bi di GMT euh, TV di chaîne jumaa ju mag ji fii fi Touba di di leen ko baaxee ñaar fukki fan ak juróom yu jot ci ci weer wi ñu ngi leen di sant bu baax seen teewlu di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp leen mm, jox daje insha allahu taala balaa yàgg di wax wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu سنته الخر وإني أحمد